léegi nag ñu am benn observatoire boo xamante ne dinañu mën a wax ñaata naka lu tax lu ñu si mën a def ñooñu tamit ndaxte seen droit la tam naka lañ leen mën a accompagner lan lañ leen mën a gën a jàppale tamit pour que soit ñu mën a am liggéey fii wala bu dee dañuy dem que ñu mën leen jàppale tam si ñu dem mais que ñu mën a dem si yoon kon observatoire boo xam ni acteurs yëpp dafa leen di boole loolu mooy numéro un bi. numéro deux bi dafa am benn méthode boo xam ni méthode psychologique la tamit mën nañu wax euh, mu tudd explicitation processus décisionnel kon loolu day tax ni que nit ki yow nga dem ba yow nga xàmmee yow. yow naka ngay xalaatee ah yow noo tàmm di xalaatee yow noo tàmmee bu benn situation méttee ba metti yow lan moo la siy génn léegi nag bu ñu demee nag ba nga xam ne nit ki ñu jàppale ko ba moom mu gis moom moom si boppam moom naka lay def ba génn si bu paree nag du ko defati nii par hasard mais situation bu manti am dina mën a def face à situation boobu troisième euh, point bi mooy li ñuy tuddee MOOC ah MOOC nag benn plateforme virtuelle la boo xamante ne ni que euh, day ubbeeku pour képp koo xam ni da koy soxla si àdduna bi te koo xam ne ñun li ñu nekk nii di liggéey muy observatoire bi muy méthode EPD bi mu yi ñuy def nii entre chercheurs yi on arrive des fois à pouvoir voir que peut-être que pour Dakar on peut identifier 400 talibés si le projet ou bien etc. etc. mais question B, ça veut dire que nous sommes encore en besoin d'un vaste programme il arriverait à pouvoir identifier cette cible mouvante Hein. Et c'est ça le projet, le problème, c'est que c'est une cible mouvante. On n'a pas encore de statistiques et c'est une question importante, mais qui reste encore à l'heure. Euh.